li nga xam ne ñoo di journaliste yi ak bien sûr benn rapport boo xam ni fësal na ko ak des chiffres yoo xam ni joxe nañu ko ñuy wax ni si 23 virgule 1 pour cent ci ay liggéeykat ñoom dong ñoom ñoo am li nga xam ne moo di CDI waaye itam 7 virgule 9 pour cent ñoom ñoo euh, dépassé baaru li nga xam ni moo di 3 3 300 000 francs CFA jëm si wàllum rémunération. waaw euh, muy journée boo xamee ni dafa tombé ci contexte bu xaw a difficile. pour le monde des médias pour la presse de manière générale euh, ndax gis nañu jafe-jafe yi nga xam ne yenn ci ay organes de presse fan yi déjà ñu ngi koy dund euh, muy ci lu jëm ci wàllu rémunération di maanaam salaire euh, yenn këru liggéeyukaay dem ba di am ay retard de salaire yuy sax cumulé fan yi paase ñuy masawu également suñu confrère nekk Walfadjri seen kër di fa ñuy liggéeyee am daay bu fa jip ba lu bari mu yàqu ko eh, yeneen yi mooy liberté presse li koy gën a eh, dëgëral liberté nit mooy salaire am liberté nit mooy wala moom bopp nit ba ci indépendance bu ñu koy wax mooy fexe ba li ñu naan bay dundee la ngay dundee nga koy bay la ngay bay nga mën ko dundee autosuffisance mën a am mën a am benn eh, sur le plan économique loo xamee ni dafay gën a dëgëral euh, sa taxawaay ba doo dépendre ci keneen nit ci boppam loolu la soxla donc presque ay nit a fa ne euh, di góor ak ay jigéen yoo xamee ni lañ leen di jox bu ñu la joxee chiffres yi ne la ni ñi ciy laal trois cent mille nu ñu ko mën a woowee wala lu ko ëpp dañ koy dañ koy wàññi euh, ñu ne la ña cee am contrat yu dëgër dañ koy waññi ñu ne la ñooy nekk ci terrain bi surtout les jeunes reporters la ñuy dund ci condition day jafe bu ñu toogee ne par exemple j'ai entendu mon mon frère et euh, confrère Bamba Kassé bi muy jàkkaarloo président de la république naan ko am na yu bari yoo xamee ni war nañ ko jooyante ci biir presse bi bokk na ci euh, ñi nga xamee ni mbirum per jëm ak yooyu c'est difficile d'enlever lu jëm ci ay per jëm ak guerre bu fekkee ni ci biir presse ña war a fayeeku duñu fayeeku ña war a am duñu am ña nekk ci terrain bi nekk ci naaj bi ni ñuy wax euh, duñu mën a cëru te bu keru amee ñeneen ñi ñooy ñooy toog euh, di jot xaalis wala di jot yenn ci ay euh, li limal ma maison de presse yi nga xamee ne am nañu coopérative d'habitat dañ koy compter ci li fi nekk ci journaux yëpp dem nañ ba benn moment sax Bamba Kassam mu ngi koy wax feuille yi ñuy wala euh, papier bi nga xamee ni moom la presse écrite di soxla di ko jëndee bitim réew wala di ko jënd ñu koy importer mu leen di dikkee ay milliards ci buñ koy natt ci at bi ci presse bi yëpp ñu dem ba yooyu les papiers ñu koy retrouver ci yeneen i endroit euh, maire bi jaay gerte caaf wala ñiy jaay mburu ci boulangerie yi moom papier boobu la ñuy utiliser ak yeneen ak yeneen yoo xamee ni liñ naan presse de manière générale dafa am ay mots ci ñaari côté su ma nee mot MAUX ak mot MOTS boo xamee ni yoo xamee ni euh, pour nga jooyanti ko dina jafe nguur gu ñëw dina jéem a def jéego ci presse bi nguur gi fi jógee am na loo xamee ni euh, defoon na ko ci wàllu fiscalité ci presse bi pour baal leen yenn ci ay bor yi waaye teewul presse bi ba léegi di am ay jafe-jafe comment faire pour defaraat lépp xoolaat. nu nit ñi il faut nécessairement lu ñuy woowee pat assise de la presse wala lu mën a doon pour permettre à ces journalistes la mais surtout man damay am xalaat ak xel ci ñuy yooye les jeunes reporters ou les reporters sur le terrain pour l'avoir été et pour euh, ba léegi sax je suis toujours reporter parce que damay dem reportage di wàcc sur le terrain conditions yi ñuy dundee conditions yi ñuy liggéey nga dugg ci biir entreprise entreprise de presse conditions yi fa xale yi nekkee ak ba ci sax wàlluk formation bi nga xamee ni soxla nañu ko loolee yëpp doon loo xamee ni jafe-jafe la secteur la boo xamee ni euh, moo yi ci nekk bari na defar ko wala lijjanti ko du yomb ci benn nguur mais ci na muy yombee mooy fexe ba nguur li mu mën ci wàlluk fiscalité ci wàlluk aide à la presse wala nu ko mën a tuddee waaye tamit ci wàlluk ay publicité aujourd'hui c'est c'est même paradoxal nga jël këru liggéeyukaay bu mag bu mel ni RTS wala Soleil wala agence de presse sénégalaise maanaam kër yi nga xamee ni nguur a ko moom ñu leen di subventionné à hauteur de milliards ba pare boole ci di leen jox ay publicité booba jamono kër gu mel ni leeral booy wut publicité xanaa nga xam Euh, euh, cheikh mu nekk euh, patron fenn kooku ne la waa garaawal mën naa la compal aslëf ci publicité mais le plus ci li may dugal ci publicité maa ngi koy yóbbu ci kër gu mag goo xam ne déjà ñu ngi lay subventionné à coup de milliards c'est paradoxal kon bu ñu toogee ñu xëy ne la entreprise nangam tëj na entreprise nangam tëj na entreprise nangam na ci presque warul bett kenn te conséquence bi mooy lan mais ce sont des chômeurs que qu'on envoie dans nu ñu ko weete ci ci ci ci dëkk bi chômeurs yooyu nag beneen situation lay indi ñëw fekk yeneen chômeurs ci yeneen structure yoo xamee ni euh, ñu ngi fi déjà euh, te loolu euh, day doon loo xamee ni neexul rafetul également je pense que les autorités war nañu toog waxtaan ci ak euh, journalistes yi de manière générale syndicats yi nga xam ne ñoom ñoo boot journalistes yi euh, pas seulement SYNPICS parce que par exemple ñun bi ñuy créer convention des jeunes reporters du Sénégal euh, ku ci mel ni man Ibrahima Lissa Faye Pape Alé Niang mi Abiboula Fall entre autres bi ñuy créer di taxawal convention des jeunes reporters li ñu gisoon mooy ni dañu amoon kuréel bu ñu woowee SYNPICS mais ñun ñu nekkoon ay jeunes reporters gisuñu woon suñu bopp ci défense su suñu suñu liggéey défense su suñuy condition de travail ñu fippu na ni on va créer quelque chose ci la ñu indi convention des jeunes reporters du Sénégal euh, lawal ko ci Sénégal ba tey suñuy rek wala suñuy rakki rakkaat di continuer boobu la liggéey c'est parce que tout simplement même les organes yi fi taxaw pour war ñoo jàppale ci yooyu la jamono defuñu ko te pourtant ay kuréel la ngi fi. Euh, moo tax quand j'ai vu par exemple ci euh, premier mai bi ci vois des syndicalistes yoo xamee ni euh, liggéeyatuñu sax ndax ba ñu retraité yàgg na taxaw di naan dañuy joxe ay cahier de doléance wala dañuy ñaxtul ay travailleurs yoo xamee ni ils son sur le terrain wala ñu ngi liggéey ba léegi c'est paradoxal donc vraiment nañu ci jàppale daal ci journée bi. ci journée bi ak chiffre yi nga xam ni fës na